ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te nuyoo bi nag mooy nuyoob lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraayi mbokk yi ñuy topp ci internet bi comme niñ leen koy baaxoo di leen koy defal rek sayu yu ne di jéeme indi ay waxtaan yoo xam ne yaakaar nañ ne yu am njariñ la ñu koy def nag ci suñu kéemtalaay kàttan ak ci suñu xam-xam bu gàtt rek tey nag ñu bëggoon a waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy dusturul muslimin muy alquran alkarim al quran nag buñ ko waxe luñ ci njëkk a dégge mooy waxi suñ boroom ginnaaw bi mu doonee waxi suñ boroom nag kon nañ koy waxe ak bindin wa ak lami làmboo ca biir du bokk ak wax mooy wàllu balaaxa bi nga xam ne mujiza la ak daraja jam làmboo ca biir ak mbooleem li nga xam ne mooy fasaaxa bi ak baatin ba ca biir lépp du mën a yam ak leneen lu dul alquran ndax suñ boroom ci boppam moo wax ne afala yatadabbaruna alquran wala kaana min cindi gayri llahi la wajalu fihi ixtilaafan kasiira xanaa doo setantal du ngeen setantal alquran dëgg-dëgg setantal ne kon ngeen seetlu ne bu fekkoon ne ci keneen la jóge ku dul borom bi di ngeen ci gis ay wute yu bare bare mu wax ci aaya ne xulin qul in ijtamacati l-insu wal jinnu alaa bi misli haadha l-qur'aan laa yaatuu bi mislihi walaw kaana bacduhum li bacdin zahiira mu ne xanaa gisoo ne alqur'aan nit li muy bari bari pexe jinne ñëw ëpp pexe ñoom ñaar ñëpp suñ boole woon seen doole seen xam-xam seeni pexe ngir ñu mën def lu mel ne alxuraan duñ ko man mukk mu waxaat feneen ne walaqad daramna linnaasi fi hada alquran min kulli masalin laallahum yatadabbaruun alxuraan ci gàttal indi nañ ci misaal mépp waaye nag du ngeen koy settental mu ne wa tilka lamsaalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha illa alaalimuun kon alxuraan ci njariñ li nga xam ne moom la làmboo ci biir ak mbóot yi nga xam ne moom la ci biir ak jagle yi nga xam ne moom la am ak may yi nga xam ne ci biir nga xam ne amul kenn koo xam ne suñu borom bind na ko mu mën koo jeexal wala mu mën a xam dëgg-dëggi mbóot yi ak dëgg-dëggi maanaa yi tax fasantikoo ak dëgg-dëggi njariñ li ak dëgg-dëgg ngëneel yu rëy ya ca biir ndax suñ borom moo wax ne law kaana qul law kaana albaxru midaadan li kalimaat rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaat rabbi walaw jinaa bi madada wax walaw anna maa fi min shajarin min shajaratin aqlaamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin maa nafidat kalimatillah ndax suñ borom ni ko ñëpp umpale ay waxam kon dang cay tàng rek loo mën a tàng réera la ci ëpp kon buñ waxee ne lan mooy alquranul karim mooy wax yàlla borom bi subhaanahu wa mi nga xam ne moom la wàcce ci yonentem bi muy muhammad sallallahu alayhi wa xam ne baat yam wàcce ca moom kiimaan la te muy téere bopp njàng ma ak jaamu yàlla xool gi ak jaamu yàlla la dégg gi ak jaamu yàlla la mu tàmbulee ca suratul fatiha jeexala ca suratul naas ñu bind ko ci kayit toxale ko la dala ci yonent bi salaahu salaam ba si ci ñun bi tawaatur dinañ ñëw ci lan mooy at tawaatur buñ ne waxe yàlla la kon danañ ci mën a dégge du waxi doomu aadama génn na ca jinne génn na ca ba ci man-manu malayika génn na ci bu ne alxuraan téere bu ñu wàcc la kon dañu ci mën a dégg ne waxi suñ borom la joo xam ne ci moom direct la bàyyi ci xam-xamam ba mu sol ko jibril alayhi salaam jibril ñëw yët ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon li mu wax ne qul law kaana albaxru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfadda kalimaatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madada kon buñ waxee ñu ngi ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wuute na ak kutubu samawiya ya jiitu woon nga xam ne yooyu ñi nga wàcc ci comme lu mel ni tawraat nga xam ne ab yonenteem la nga xam ne martaba bi alxuraan am amul benn téere boo xam ne bu yàlla masa wàcce boo xam ne am na ko bu ñee xarxur aada la wala mujiza la kon ginnaaw bàyyi ko gim bàyyi ci suñ boroom nga xam na waxin wax ak bind wa lépp ci borom bi subhaanahu wa taala la bàyyi ko ñim jaar ci ñoom muy jibril alayhi salaam ak yonent bi sallallahu ak jottali képp lañ ci am mu'jiza nag mooy loo xam ne xarqu aada la kiimaan la goo xam ne ci suñ borom rek lay mën a bàyyi ko wala suñ borom subhaanahu wa taala defal la ko wala defal ko mu jaar ci ab yonant ngir mu nekk lay wu jub bu wér ngir woote boobu muy woote ci ab yonanteem kon alxuraanul karim suñ boroom jaarale ko ci jibril alayhi salaam jibril jox ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi wa sallam jàngal ko saaba alayhi salaatu wasalaam ñu bind ci ay der ak ay awraaxu tamr ba ca jamonoy abubakar siddiq radiallahu anhu mu digle ñu dajale ko ba dajale ko sottee ci jamonoy Usmaan ibnu Affaan mu nekk benn téere ñu tuddee ko mushaf boo xam ne bàyyi woon ca dara bàyyi woon ca lenn loo xam ne war nañ ca bàyyi dara buñ nee nag ñu ko jote ci atawatur atawatur mooy mbooloo moo xam ne dañ ko jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa nga xam ne seenu lim bari na barawaay boo xam ne xañ na mëneesu koo lim te xel mu sell mënta jàpp mukk ne mbooloo moomu mën nañoo daje ci ay fen mbooloo moomu joxewat ko jox ko mbooloo jox ko mbooloo ba mbooloo ba mu yegg si ci ñun tey ji loolu mooy attawaatur nga xam ne mooy dalay wër ne lii ci yaqin gu wër a la amul dara loo xam ne mën na si ña cee indi ak njuumte te ndax ginnaaw yonent ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala moo ne maa wàcc alxuraan te maa koy sàmm loolu rek noonu dong la mën a demee nag bokk na ci ay jagleelam muy ca tàmbali ba mokkal gi ko saxaaba yi daan mokkal ci seen dënd loolu bokk na ci jagleelam ndax yittewoo gi ko mboolem jullit ñi yittewoo ba tey ji nga xam ne ay xale yi ndaw a koy mokkal ci seenu dënd loolu bokk na ci jagleem ndax neewaana téere yi masa wàcc ñi koy mokkale ni ñuy mokkale alxuraanu karim bokk na ci ay jagleelam làmboo gim làmboo dëgg ko wér-wér ndax alxu téereem yàlla bi ci boppam yàlla waxal boppam ne zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin ne bi la téere kat am lenn lenn sekk sàkk lépp ak njub la ngir ñi ragal yàlla muy dëgg gu amut jenn fen lépp lum làmbool dëgg ku wërëwër la moo xam nettali yi ci biir alxuraan di jàngale wala di ñu nettali ña jiite woon wala sax ci biir nettali yi nga ciy dégg li ngay dund wala sax mu lay wax loo xam ne dikkagut yooyu yépp wér gi wir moo ko waral wala boog nga ci def ay ictichaafaat di ci génn ay mbóot ak secret yoo xam ne ci alxuraan lay ballali ko buñ déggee buñ buñ dee wax nag shafaatuhu ahlihi moom it bokk na ci ay jagleelam ndax alxuraan day ramm yi nga xam ne ñoo ko daan toppatoo mu dale ca sëriñ daara ba wala boog mu dale ca waaye juru gone gay joxe doomam ca daara ja sëriñ daara ba ak ñay toppatoo daara ja ñëpp dugg nañ ci ramum ndax lépp ab cër la ci toppatoo ndax yen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na iqra'u alquran fa innahu yaati yowm alqiyaama shafian li asaabihi de leen jàng alquran ndax di ko jàng kat bu yowm alqiyaama alxuraan day ñëw taxaw aramu la bokk na ci ay jagleelam muy mokkal gi ak jàng gi ndax yombal gi ko suñ borom yombal ak wayfal gi ko suñ borom wayfal ngir doomu aadama yi àttan ko ndax li mu wax ne wala xad yassarna alqurana li fa hal min muzakkir ndax ma wax feneen ne walaw anzalna hadha alqurana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah kon yombal gii suñu yombal ko moo tax ngay fekk xale yi ndaw di mokkal alquran mokkal gu gaaw a gaaw makaanatul quranul karim daraja ji alquran am ginnaaw waxe suñ boroom la comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ni suñ boroom gëne bindee famille noonu la alquran gëne mboolem wax yi li ab julit gën di yitte woo te muy li nga xam ni moo ko gën a mën a eggale ci yàlla wala gën a mën a am daraja ci yàlla dara jiituwu ci fonk alquran dara jiituwu ci yittewoo alquran dara jiituwu ci dund alquran ndax mooy wax borom bi subhaanahu wa taala ndax mooy wax joo xam ne moo làmmoo njariñ yëpp te mooy jenn wax joo xam ne amul lenn njuumte ndax maasuum min azzalal amul lu ci mën a dugg lu ko mën a lu ko war a mën a yàq ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ko aar mooy wax joo xam ne suñ boroom moom la gënal ci mboolem wax yu mas a wàcce te it mooy téere bopp moom la suñ borom mujj a wàcce ci kutubu samawiya kon alxuraan suñ borom daxañ na ci xibaar ña ñu jiite woon daxañ na ci xibaar ñi war ñëw ëllëg ba noppi mu def ko atte ci diggante mboolem bind fi bindee fi mboolem luñ soxlawoo ci seen addina ak lu mën a doon ak atte bu mën a doon moo xam alal la moo xam diggante nit ak nit la moo xam sëy la moo xam xeex la moo xam xëccoo la moo xam axkaamu dima la nga xam ne tour deret wala xeex moo xam wàllu faj la sax médecine na boo xam astrologie la amul dara loo xam ne alxuraan bàyyi na ko moo kay jullit bi mooy taayeel ba te dabbur bi mu war a def ak yitte jëm ko war a jox def ba iktishafaat yooyu ñu sàggane ko ba tubaab yi di ñu ko defal kon alxuraan mooy téere boo xam ne ci zahir ak ci baatin suñ borom bàyyiwu ci dara alxuraanul karim nag saari limu lam yalil la muy cent quatorze cent quatorze saar dafa juróom benn fukk isib muy wax nañ nag ne saar wi gën ci saar yi muy faataatil kitaab ak suratul ixlaas loolu it boroom xam-xam yi dañ ko tibb ci ah, li suñ boroom wax ne walaqad aataynaaka sab'an min almasaani wal qur'aan al azim ndax tudd gim tuddaat faatiha tudd la ñu jële ci xadis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci suratul ixlaas bi ko benn saxaaba laajee na ko ban saar moo gën ci alxuraan mu ne ko saar wi gën ci alxuraan mooy suratul ixlaas ñëwee nag ci jàng alxuraan jàng alxuraan nag ngëneelam leer na ci ñëpp ne ginnaaw waxi suñ borom la kon amul jenn wax ju mel ni moom ni nit def nag jël waxi nit yàlla wala wax ju mën doon jël ko teg ci kaw alxuraan wala mel ne ko koy teg ci alxuraan alxuraanu karim loolu njuumte lu ndax ku mën a wax ak say wax lu mu rëy rëy ak lu mu màgg-màgg alxuraan rek la war a leeral wala alxuraan rek la war a junj wala ñaax nit ñi ci alxuraan rek lu génn foofu dafa mas a am nitug yàlla goo xam ne dafa amoon ay jamono yoo xam ne daa toppoon rek di gëstu ci ahadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax di càmbar yonent bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa xaw a sàggane mel ne ku sàggane sàgganew ko sax waaye xañ na dog yam daan def ci alxuraan mu wàññi ko mu tëdd guddi gent am ku ne ko ku jël day jeneen wax wala sax ku jël ahadis te ahadis mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci gënal ko ci alxuraan danañ la alak deful ay fan dara bët yi sëgg mu daal di gumba nga xam ne kooku nitu yàlla la xañ na donc yam daan def ci alxuraan wàññi dim ko wàññi moo tax suñ borom teg ko natt boobu sàkkaan ak koo xam ne dañuy jël alxuraan di ko sàggane wana di ko suufeel loolu kufrun billahi la kon nañ xam ne alxuraan wa afdalu zikri kitaabullahi maa tadabburi wan intibaahi loo mën a sekkal ci àddina alxuraan ko gën ak nuñ la ko mën a naatale yeggul sax ci alxuraan ndax booy gam gam le ñaari wax mi ngi mel ne nga jël bindeef di ko gam-gamleeg yàlla gam-gamleeg alxuraan ak leneen mi ngi mel ne nga jël borom bi subhaanahu wa taala di ko teg tëkkale ak keneen kon alxuraan mooy sikar bi gën ci sikar waxtu woo ba wax ak suñ borom rek jàngal alxuraan boo jàng waxtu bi ngay jàng alxuraan ne yaa ngi wax borom bi subhanahu wa taala te waxtu woo bëggee jege borom bi subhanahu wa taala den jàng ku jàng kuy jàng alxuraan xamal ne yaa ngi wax yàlla jege borom bi subhanahu wa kon faju ci alxuraan dafa am Euh, bis Seydina Musa alayhi salaam mu am mettitu biir bu ko sonal lool nekk ci nag siina koy jàmbat borom bi subhaanahu wa ngir mu teggil ko metti waaw yàlla tegtal ko ak gàncax mu dem ca gàncax ga wétt ca lekk ca mu daal di wér fi saasi daal sant yàlla daal di dem ca yitteem mu demaat jëmi jamono tawat jooju dalaat ko mu dem ca garab ga direct daal di witti comme rek garab gi moo ma fajoon naa dem rek witti ca naan jëfandikoo mu daan may faj bim ko naa bim wittee ca garab ga lekk comme na mu defoon bu njëkk wérut tanewut a ah, moo jàmbat ko borom bi subhanahu wa taala mu ne ko yow Musa anna dunya kulluha summun qaatil wa tiryaaquha ismi mbooleem dina ci àddina dafa am dangar te man yàlla sama tur mooy da koy mocc kon ñu dégg ci turu suñ boroom dafa am taasiir ci lépp te rawatina alxuraan li tax alxuraan nag doy waarta kiimaane fi ne mën nga feebar bind kaamil bépp naan ko wala sangoo ko du tax nga wér waaye mën nga caa jukki benn laaya rek nga bind ko naan ko fi saase nga daal wér te alxuraan shifa suñ borom shifa la saafara saafara nag bokkut ak garab saafara moo man garab ndax saafara dalay faj ba fajaale la loo xam ne yow ci sa jëmmi bopp doo ko xam loolu mooy saafara day faj zahir day faj baatin mooy saafara te tamit naan gi koy naan rek loolu leer la tuyaaba bala te alxuraan sax rawatina ndax dégg nga ba tàyyi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne dee jàngal seeni ñuy sokaraat wala seeni ñu faatu suratu yaasin ndax yaasin day teggi sukuraat su metti boo koy jàngal ka ca toll day dimbali ku faatu day teggil mbugal ku faatu ak yu baree bare ak sooratul lixlaas moom tamit ñeent fukki lixlaas yi lu am solo la ci ñi nga xam ne génn nañ àddina junni lixlaas yi sax fidaawu la ci yow sa jëmmi bopp wala koo koy defal kal alxuraan shifa shifa mooy loo xam ne zahir lay faj ak baatin mokkal alxuraan secret yi ne ci biir ñi nga xam ne dañoo jàng alxuraan rek xañ na jàng wàllu saaxir si te gëstuwuñ wàllu baatin bi wala boog gëstuwuñ eh, na ci njariñam xañ na duñ ko mën a gëm waaye fi ne lépp looy sàkku ci feneen boo ñëwee ci alxuraan danga ko fa fekk te alxuraan a koy man fuuf kon ñi wax ne alxuraan dafa yeex ñooñu xamuñu alxuraan ndax boo nee alxuraan dafa yéex rek man da nga yow maanaam suñ borom ngay wax ndax waxe suñ borom la te yàlla wax ne day saafara te saafara bàyyiwul dara ci àdduna gis nga ba tàyyi tawat joo xam ne dem nga ci docteur ñu ne la gisuñu dara nga ñëw ci ñoñ alxuraan ñu jox la saafara nga daal di jug dem si yoon gis nga ba tàyyi xam ne bopp bi metti la nga naan garab goo mën a naan lu wér nga ñëw ci nitu alxuraan mu moccal la ko saasi nga jug dem sa yoon gis nga ba tàyyi am nga aajo fune nga dem fa nga ñëw ci nitu alxuraan mu ñaanal la suñ borom ci alxuraan loola saafaraw kon alxuraan bàyyiwut dara sa xam-xam rek moo cay gàtt wala bokk ak ñàkk sell ci yow ndax alxuraan moom fa nekk ba tey ma nga fa looy gën a sell rek mu lay gën a wuyu ndax leer la alxuraan leer la goo xam ne amul yamuwaay ci ci ci ci kenn kem rek yow sa sa sa sa kattan ak baatin ak sa ak sa farlu ak sa jaamu yàlla ak sa sell la rek lay fonctionner ci yow ndax am na ci ñoo xam ne mën nañ laa ñaanal benn fan sa aajo faju ci alxuraan am na ci ñoo xam ne mën nañ laa ñaanal ñeent fukk fukki fan sa aajo soog a faju ci alxuraan te loolu ci wuuteeg ijaaba yi la ak ak ak gi ci ci nit ki tey tamit beneen xosisiyaan bi mu am yow jëmmi naan gi ngay naan alxuraan wala jëmmi sangoo gi ngay sangoo alxuraan ci fu sell nag moo tax may wax loolu rek tuyaaba bala loolu rek tuyaaba bala te bu doon leneen la mënoo ci am tuyaaba xaj na mën nga ci am saafara waaye doo ci mën a am tuyaaba ndax alxuraan jàng gi tuyaaba la déglu gi tuyaaba la xool gi tuyaaba la kon naan gi ci boppam tuyaaba bala sangu gi tamit tiyaaba bala ba ci takk gi sax tiyaaba bala kon alxuraan lépp luñ la ci wax rek lépp luñ la ci wax rek bàyyi nañ ko ndax dafa am ay saxaaba yu masam a dem ci barab am ku xisa bu gàtt xañ na gën naa yaatu loolu waaye am ca kilifa ga jaan màtt ko bi ko jaan màttee am ku ñëw ci ñoom ne ndax kenn ci yéen mën naa mocc am kenn ku jóg ci sa ci saxaaba ne leen waaw bi mu mu moccal ko te faatihatan kitaab la ko moccale la ko moccale jànja mu daal di wàcce fi saasi ñu daal leen di weexal jox leen gàtt yu baree bare kon weexal tamit lu yàgg la lu ñuy tuddee albayaad arab bañ na ba albayaad la ko tuddee weexal weexal nag buñ liñ koy wax xëy na danañ ci ñëwaat ci beneen jotaay waaye mooy luy dindi dangar rek waaw moom it lu am solo la ci ñaan demee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nettali ko ko mën leen ku leen wax ku leen xamal ne alxuraan mën naa mën naa mocc jaan te loola xañ na luñ dégg la ci yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi daana mocc ci alxuraan ba ci tawatam ji mujj ci sax daan jàng ci ay alxuraan di ko af ci boppam suñ day Aïcha nee na bi demee ba mënatu a ma ko koy defal ma koy defal kala nit ki fu mën a toll rek daa war di taxaw moom ci di ko jëfandikoo ci jàng di ko jëfandikoo ci lu muy naan di ko jëfandikoo ci lu muy sang sangu ba ci sax di ko jëfandikoo ci lu muy takk. ndax loolu lañ gëm te alxuraan mën na loo loo xalaat rek alxuraan mën na loo ëpp loolu kon mbokk yi lii am waxtaan la ñu leen indiloon rek ci alxuraanul karim waaye ngeen xam ne alxuraanul karim du jeex waxtaanam du jeex buñ ci doon waxtaan fii ba déwén du jeex ndax alxuraan toll noonu kon ñu fàttali mbokk yi nga xam ne dañuy faran di laaj numéro bi. 77 la 743 30 92 ñu ngi jégaluwaat bu baax nag ci njuumte yi ndax wax moom bu yàggee rek su baree faaw njuumte mënu ci ñàkk ñu ngi koy jégalu bu baax di ko jégalu suñ borom subhaanahu wa taala ndax bëggoon nañoo wax lu ko gën a leer lu ko gën a baax lu ko gën a ëppi teggin li ci jub nag ñu sant ko borom bi subhanahu wa taala in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaam